boo tax bokkuma ci man tey ma bokkoon seen association yi ak seen groupe bi du ma am lu may wax mais man li ma leen wax mooy grand yi nañu ñëw ñu créé association boo xam ne ku ci nekk da ngay indi say këyit teg indi clip yi nga def teg ñu dem ministère de la culture jooytu ko ne ko dañu war a am suñu droit bi wax lu tamit dafa am importance est-ce que euh, considération bi ñu leen waroon jox parce que parfois bu ñu nee góor dafay fecc rek li ñuy njëkk a xalaat mooy euh, góor warta fecc jigéen moo war a fecc euh, kii tava big taf mhm. àdduna foo dem ci àdduna bépp métier boo gis góor ak jigéen na koy def. dëgg bépp métier. dëgg la boo gis si àdduna. dina am partie boo xam ne góor moo koy def am partie boo xam ne jigéen na koy def. Mm-hmm. comprendre nga ma la wax fecc moo nekk métier boo xam ne balaa nga koy def da ngay am amour bi ba pare parce que nit mënta mer di fecc. Mm-hmm. ku bëgg fecc ku bëggul loo fecc pour nga fecc foog nga bëgg muy métier boo xam ne pour nga def ko foog nga bëgg ba pare soo koo def. Mm-hmm. parce que li nekk ci sa xol ngay dégager muy génn. kon foog nga bëgg pour def ko. day fekk ci beneen xol. te mu pour mu war a duggaat ci beneen xol. Ah, si yaa ngi dégg li ma la wax tey jii États-Unis Maleek Guinée foo dëkk boo dem di nga gis jigéen ñuy fecc gis góor ñuy fecc métier bu man métier bu ma respecté la fecc mii ni métier bu ma respecté la moo waral su may jóg di dem di ko defi damay mel ni comme si maa ngi dem sama bureau comme maa ngi dem palais war a gisanteeg Macky suñ papa jooju. bul pëtax lu ñëwal rek. ah Macky di suñu papa. eh ma ne bul pëtax lu ñëwal. bis Macky di suñu papa. waaw d'accord papaay kan la. mooy waxal si rek yow yaa ngi dégg li ma la moo waral saa bu may génn man sama kër loolu laay njëkk a indi sama xel def mooy maa ngi dem def defi sama métier kon bu ñu kenn xeebal lii ñu xam ne moom la ñu yàlla séddee. nit ku ne ak la la yàlla séddee. ku nekk nekkul li nga bëgg a doon. moom ngay doon. dafa. fii kuñ ko fi jiin daal yow la ñu ko fi am na ñoo xam ne kenn jiinu leen ko fi ngi def fi góor di def di fecc fecc góor dafa suñu suñu ba ma daree ba ma daree nekk ci àll fecc ba léegi mosuma dox nit wooye ma góor jigéen mosuma dox nit wooye ma yambar mosuma dox de nekk ci dara luy ñàkk fayda dara lu ñàkk fayda mosuma cee dox parce que dama yebee sax ci doxin parce que damaa xam sama bopp ayca gars yi nga xamante ne ñi ngi ñi ngi réagir ci réseaux sociaux yi ñu ngi leen di gërëm bu baax am ah, big taf ku ci mel ni youtube bi en direct ah maa ay Awa Ndiaye ay Cheikh Ndiaye ay ay ay ay ay ay ay ay bari nañ ah mm-hmm. euh, xam naa ni big taf ci kanam dina ñëw ñoom it ñu ngi ci débat bi à fond wax dëgg yàlla Euh, <laughs> awa awa waat dëgg la lii comme guerre lii romb na guerre buy <laughs> ma euh, bi dafa am loo xamante ne dafa am parce que ñoom ñii euh, man balaa may comprendre téléspectateurs di seetaan di ñu di comprendre aussi parce que dafa am association. Mm-hmm. man association yi comprendre ma as dafa laa yow ci ban association nga bokk.